Cheikh Moustapha santal dayab cant yaa fi amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Moustapha Cheikh Moustapha santal dayab cant yaa fi amul ku lay werante te ka ngaayoo ci Moustapha tadal nang nelaw ya Moustapha ñépp mako nañ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 محمد عبد الله أخني Thank you. sakareere Cheikh Amdi Moustapha ci waaw mbaa ci waaw mbaa ci woowoo nga tollu tey ku ñëw rek ku jëkki jooy ndeyaa doon Mustafa wolof nee na woote bi yàlla moo gën bu nit di def defoo kenn deful yàllaay borom kun fa Mustafa wolof nee na ku am xel nangu dem téléphone nelaw ku am xel na ànd ak dem wuy ji Mustafa la Seex Bamba noon waa réew mi yàlla ma ku dib dof na tuug ni xil wa dew fekk Mustafa Sëriñ Bamba tuubal nan la ñëw nan bi jaayikum te salaaw dootu nu dellu wel nan ci Mustafa ndax ganaar ak nenam yaag siqiya cuuja kulluhum borom gamb baa moom lépp naaw tal nu Mustafa Cheikh Mustafa mi maay mujjisaatam fardi lamiñ wa koy waxal wa kallama rabbul harsi Musa bi Mustafa lu jin njaaga bambay njaag te mooy njiin fa Mustafa ku nag jikkoom war naa liggéeyal si Mustafa cheikh moustapha gee junganeel waaju ak si duy ku mar bay xondooj yaa tey ma ngay wal ndoxom maa ngi wër tuuba batum aynu rahmatin waxay nuuri daa dem leen dëkkee ki sayqi moustapha ma nga tuuba bi tajdiidi diinihi yërëm ndaw ña magal mag ña moo doon Mustafa di sëyloo jigéen ña denculoo góor ña kulluhum di leen san di leen seetal na ngeen santu Mustafa lu waay soxla boo fay dem muy faj loola saatan tabeek topp yàlla diine moo sax fa Mustafa kila am médaille fii بعد باطن عنايته قبل الولاية مستوى كلي kila واكو كيغلو غاندام ديكر ndayam ña doon kaañi kankaan ba koleeram fa mustawa kuloo wasra boo dex gaa ngi fengat to dootu daay sëriñ bi di barul juudi ولا يستوي البران عصب سرابو وملخ أجاج بالخياس نتي مصطفى ولا يستوي لهما كلام إلهنا فأنت بشير يا شيخ عبد المصطفى ولا يستوي لهما كلام إلهنا

tëddal nag nelaw ya mustafa ñepp mokk nañ amul kenn ku lay xiirooti luum nan ci Moustapha tëddal nag nelaw ya mustafa ñepp mokk nañ amul kenn ku lay xiirooti luum nan ci mustafa wala yaar yu may borom ni mustawa muhammadu abdalaay ax bi mustawa ña daa xiiru ak ñay mat seen gëñ ya foq nañ sa bawkat yi seen gémmiñ yi saañ ko mustawa ña daa jabar ak yalax nañu seen xam-xam ya far toppi mustawa sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy see ka far jekki mustawa su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw ne yaa ña daawoote ña ñi ngay woo nee nañu waaw waaw nda Seex Bamba yaay donoom ku koy sikki sakaareere Seex Amdi Mustafa ci waaw mbaa ci waaw waaw mbaa ci woow woow nga tollu tey ku ñëw rek ku jëkki jooy nda yaa doon Mustafa wolof nee na woote yàlla moo gën bu nit di def defoo kenn deful yàllaay borom kun fa mustawa wolof nee na ku am xel nangu dem téléphone nelaw ku am xel na ànd ak dem wuy ji mustawa la Seex Bamba noon waa réew mi yàlla ma ku dib dof na tuug ni xel wa dew fekk mustawa sëriñ Bamba tuubal nan la ñëw nan bi jaayikum te salaw dootunu delu wel nan ci Mustafa ndax ganaar ak nenam yak siqiya ju kulluhum borom gamba ba mom lepp naaw tal nu Mustafa Cheikh Mustafa mi maay mujjisaatam fardi min wa koy waxal wa kallama rabbul harsi Musa bi Mustafa lu jin bambay te mooy njiin fa Mustafa ku fay nag jikkoom war naa liggéeyal si Mustafa Cheikh Mustafa géeju ngëneel waaju ak si duy ku bay xondooj yaa tey ma wal fa Mustafa ndoxom maa ngi wër Tuuba batum aynu rahmatin waxay nuuri daa dem leen dëkkee ki sayqi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 ولا يستوي البران عصب سراب وملخ أجاج بالخياس نتي مصطفى ولا يستوي لهما كلام إلهنا فأنت بشير يا شيخ عبد المصطفى ولا يستوي لهما كلام إلهنا fanta basirun yow seexam di mustawa fatima ña daalu xus yalax nañu seen xam-xam ya far toppi mustawa sigil te weytoo madru yi tuub nan ci bu wér te bul faale ka wuy ka far jekki mustawa su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw la yawat ña daawoote ña daawaate mustawa ñi ngay woo nee nañu waawaaw nda Seex Bamba yaay donoom ku koy sikki sakaareere Seex Amdi Mustawa ci waaw mbaa ci waawaaw mbaa ci woowoo nga tollu tey ku ñëw ree ku jëkki jooy nda yaa doon Mustawa wolof nee na woote bi yàlla moo gën bu nit di def defoo kenn deful yàllaay borom kun fa mustawa wolof nee na ku am xel nangu dem téléphone nelaw ku am xel na ànd ak dem wuy ji mustawa la Seex Bamba noon waa réew mi wooteloo ku dib dof na tuug ni xel wa dew fekk mustawa sëriñ bamba tuubal nan la ñëw nan di jaayikum te salaaw dootu nu dellu wel nan ci Mustafa ndax ganaar ak nenam yaag siqiya cuuja kulluhum borom gamba baa moom lépp naaw tal nu Mustafa Cheikh Mustafa mi maay mujjisaatam fardil lamiñ wa koy waxal wa kallama rabbul harsi musa bi mustafa lu jin njaaga bambay njaag te mooy njiin fa mustafa ku fay nëg ji sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér bul faale ka wuy seek farjeki mustafa su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate mustawa